هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآباء بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq di wax mbaa yéen a ngi ci jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit ñi nga am mbégteeg kontaan te ñëwaat ak yéen seen tafsirul quranul karim comme niñ ko doon defee ci weeru koor bi yépp xam ngeen tey mooy suñu onzième numéro maanaam suñu fukkeelu fan ak benn ci shahr ramadanul mubarak kon tey la ñu umaat yàlla ñu yàlla defal ñuy eggale ko ak jàmm ba ñu woor màngu weer bi yépp incha allah tey nag ñu ngi ñëwaat ak yéen ci beneen saar muy soratul jinni soratul jinni mu ngi tudd saaru jinne yi mbokk yi xam ngeen ne yàlla ñaari xeet la bind yoo xam ne dañuy dox ci kaw suuf mu tuddee leen ak saqalay ni muy nit ak jinne mu bind doomu aadama ci suuf daal di koy def mu nekk suñu maam ibrahim aadama alayhi salaam daal di bind beneen façon boo xam ne du nit waaye jinne la mu bindee ko ci safara ki nga xamante ni mooy seen maam ñoom jinne yi mooy iblis laanatullaahi alayhi saar bii nag li tax ñu tuddee ko suratul jinni xam ngeen ni jinne yi dañ daan yéeg ci kaw asamaani juróom-ñaar di sàcc di déglu la yàlla di dogal buñ ko déggee daal di ñëw di ko wax waa suuf di collaborer ak njabarkat yi ak gisaanikat yi moo tax temps yooyu jinne yi njabarkat yi ak gisaanikat yi luñ la wax rek dëgg la luñ la wax rek dëgg la ndaxte jinne yi ñoo leen ko daan wax te jinne yi dañ ko daan déggee ci kaw asamaan ndax xam ngeen ne xay bu lu ñëwagul kenn xamu ko dul yàlla boobu nag ñoom dañ daan dem di déglu ci ñu toog ba mu yàgg ñoom jinne yi bu ñu demee ci kaw asamaan mënatuñoo déglu wala mënatuñoo dégg dara ci li yàlla di wax ñu ne ah am na lu xew ñun daal am na lu xew ndaxte niñ daan demee di sàcc ay information ci kaw asamaan mënatuñ ko te kaw asamaan na mu meloon dafa changé léegi dafa soppeeku kon am na lu xew bi ñu waxee loolu nag ñu daan ni kon jinne yi tasaaroo leen ci goxu àdduna bi yépp ngeen dem tasaaroo di déglu xool ba xam lan moo xew ndax xam ngeen ne jinne yàlla may na ko puissance boo xam ni mën naa naaw dem fu ko neex ci ay minutes wala ay secondes bi ñu defee loolu nag am jinne yoo xam ne dañu ñëw màkk bi ñu ñëwee ñu ñëw ba fi ñuy wax suuqu Okaza marché Okaz moom lañuy moom lañ koy oowee léegi nag ñu daal di gis foofu benn jàkka ñu daal di taxaw déglu gis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw di jàng alquran yàlla yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng alquran si lañ ñëwee nag daal ni ah am na lu xew ñun de dégg nañ benn waay boo xam ne mi ngi jàng loo xamante ni ñun mësuñu ko dégg kon lii moo tax léegi kenn mënatul a yéeg ci kaw asamaan ci la ñuy xoolee nag xibaar yenent bi ba xam ne kii yenent la ñu daal di daw nag ñëw informer seen mbokk jullit yi ne inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi ñu demoon déglu ñu moom dañoo gëm ci saase moo tax jinne yi ba léegi dafay am ñoo xam ne dañuy gëm yàlla am ñoo xam ne duñu gëm yàlla ay yéefar la ñuy doon comme ni ko nit ñi mel loolu mooy tax suratul jinni wàcc yàlla di wax subhanahu wa taala ci saar bi bismillahi rahmaani rahim ñu ngi commencé suñuy suñuy wax ak suñuy jëf ci turu yàlla bi nga xamante ne moom moo sell yàlla bi nga xam ne mooy yërëm mbooleem mbindeef yi ci àdduna waaye mooy yërëm mbooleem ko gëm ëllëg yowmal xiyaam yàlla mu ne si alquran qul uxiya ilayya annahu stamaa nafarum min al jinni fa qaalu inna samicna quranan ajaban mu ne yow muhammad waxal sa saxaaba yi waxal gaa yi waxal waa màkk na leen man dey xibaar nañ ma wax yu nañ ma ne ma am na aw mbooloo innahu sama nafarun minal jinni am na aw mbooloo boo xam ne si jinne yi lañ bokk dañoo déglu alquran boobu fa qaaloo ñu ne inna ñun dey sami'na dégg nañ qur'anan alquran boo xam ne ajaban bu yéeme la ndax loolu ñu dégg mësuñu koo dégg moo tax yàlla ne muhammad waxal ne leen waxal xeet yi ne leen man de wax nañ ma ne ay mbooloo ci jinne yi ñëw nañ déglu alquran bi ma doon jàngale ñoom ñu ne dégg nañ alquran boo xam ni bu yéema la ñi daal ne yahdi ila rushdi fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahad ahada ñu ne alquran boo xam ni dafay jubale doomu aadama yi sig njub lii ñu déglu day dafay jubale doomu aadama yi sig njub ñun de gëm nañ lii nga xam ne mooy alquran bi ñu dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi dëgg gëm nañ ko ñu ne wala nushrika bi rabbina ahadan kii nga xam ne mooy borom bii wàcc lii di alquran duñ ko bokkaale kenn wala leen wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa sahibatan wala waladan ñu daan ni dëgg daal tey dëgg mooy borom bii nga xam ne mooy suñu borom bii ku màgg la moom day màgg na lool te amul soxna amul doom kii nii ñun de gëm nañ ni mooy yàlla kii mu yónni gëm nañ ni mooy yonent bi te ku màgg la te kii gëm nañ ni amul doom ndax ku mel nii mënut a am doom waaye amul tamit soxna wa annahu kaana yaqulu safihuna ala allahi shatatan mu ne waaye am na ñoo xamante ne ñu doyadi woon lañ ci ñun ñoom day dañ daan wax ca yàlla loo xamante ne nii amul dañ daan wax ca yàlla loo xamante ne nii ay nar dong la mooy ñi nga xamante ni mooy ñi gëmul woon yàlla naan yàlla dafa am doom wala yàlla dafa am soxna mu ne waaye nag te loolu ñu daan wax ci yàlla day amul nekkul loo xam ne dëgg la loolu daal ak mooy la rek bu wér a wér ñu ne wa anna zananna an lan taqula insu wal jinnu ala allahi kadiban te ñun day yaakaar nañ ginnaaw ba alquran wàccee ne nit day ak jinne dootuñu wax ci yàlla loo xam ne aw neen la wala ay neen la wala loo xam ne ay kàcc la ñun day yaakaar nañ ni lii yàlla nga xam ne moom mooy moom la wàccee muy alquran bii gannaaw bañ ko dégloo ak déglu muhammad sallallahu alayhi wasallam lu muy waaraate nit ak jinne sañatuñoo wax ci yàlla ay neen sañatuñoo wax ne yàlla dafa am doom wala dafa am li nga xam ne moom mooy soxna lii moom kenn sañatu koo wax fi ñu toll xam nañ ne kon yàlla kese mooy yàlla te yàlla kenn la ñu continuer di wax ba tey ñu ne wa annahu kaana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqa rahaqa mu ne am na aw nit yoo xamante ni ci jinne yi la ñu nekkoon ci nit ñi la ñu bokkoon dañ daan wax ak nit ñi nga xamante ni dañoo bokk ci jinne yi waaye dolliwuñ leen lu dul ak réer réer rek lañ leen dolli maanaam ñi nga xamante ni dañ daan muslu di làqatu ci ay jinne ay doomu aadama yoo xam ne dañ daan musle di làqatu si jinne yi ñoom de duñ leen dolli loolu ak réer yàlla rek moo mun a musle yàlla rek moo mun a làqaate mu ne wa annahum zannu kama zanantum an lan yabaasa allahu ahadan te ñoom it dañoo jortoon comme ñun ni ñu jortee woon ndax ñun yaakaaroon nañ ni dee amul ñun jinne it dee am na sax waaye yaakaaruñ ni woon ni dekki am na ñun dañoo foogoon ni dekki amul mu ne lan ni si doomu aadama yi tamit loolu la ñu foogoon comme nit ñu foogee ni yàlla du dekkal kenn ku xas dee rek jeex na mu ne waaye xam nañ ne dekki am na xam nañ ne ni dee amee noonu la dekki amee te ñun sax léegi wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli at xarasan shadidan wa shuhuban mu ne ñun dem nañu làmbi asamaan dem nañu xooli pour yëndu ji asamaan waaye dañoo fekk ni dafa fees dell ak ay garde yoo xamante ni ñu am doole lañ ak ay jum parce que alxuraan yi ni mu doon wàccee jigéen ci asamaan si di wàcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon protéger secret yeeg lépp nga xam ni dara dootul seen ci kaw asamaan si ñu ne fekk nañ asamaan de ñu garde ko def fa ay jum yoo xam ne ñun mënatuñoon egg ci kaw asamaan bay déglu li nga xam ne ni mooy xew ci yàlla moo tax ba loolu amee ca la njabar néewee doole dinañ xam dara de mais lu néew a néew la ñuy xam wala sax léeg-léeg yonent bi nee dañuy xam benn dëgg rax ci fukki fen benn dëgg rek la ñuy xaw a xam rek daal di ciy rax li nga xam ne moom mooy fukki fen ndax léegi mënatuñoo dem ci asamaan sa di déglu ji li nga xamante ni moom la yàlla di dogal foofu mu ne wa anna kunna naqudu minha maqaida li sam'i fa man yastami al aana yajid lahu shihaban rasadan mu ne ñun dañ daan yéeg ci kaw asamaan wa anna kunna dañ noo nekkoon naqudu minha di toog ci kaw asamaan soosu am fa lan maqaida li sam'i am ay bank yoo xam ne si lañ daan toog pour déglu li yàlla di wax waaye loolu da jeex na bisib tey ba yàlla wàccee muhammad yónni ko ci la loolu jeex léegi fa may yastami al aana képp koo xam ne danga dem léegi pour déglu ji yajid lahu shihaban rasadan di nga fa fekk ay jum di nga fa fekk ay ay kii boomukaay yoo xamante ne yu jub la duñ la mooy buñ la diiree rek dañ lay jam moo tax léegi ñimeetuñ faa dem ñimeetuñoo déglu li nga xamante ni moom mooy kaw asamaan bay mën a indi lenn loo xamante ni dañ koy wax fii ci kaw suuf mu ne wa anna minna saalihuna wa minna duuna dalika kunna taraiqa qidadan ñu ne waaye nag am na si ñun ñoo xam ne ñu baax lañ dootuñu dem di yëndu leen ndax gëm nañ yàlla gëm nañ muhammad salallahu alayhi wa sallam waaye wa minna duuna dalika am na ñeneen ñoo xam ne nag meluñu ne ñun ñoom day kunna wa kunna duuna wa minna duuna dalika kunna taraiqa qidadan mu ne ñun day gëm nañ léegi waaye am na ñeneen ñoo xamante ne nii ñun bokkuñoo ak ñoom ba léegi dañuy dem ja nekk ay jamaat ay mbooloo yoo xam ne yu tàqalikoo lañ pour bëgg a dem di déglu ji waaye ñun moom ñi nga xam ne jot nañoo dégg alxuraan bi gëm ba gëm ñun moom dootuñu déglu ji leen ndax gëm nañ yàlla subhanahu wa taala ñu ne wa anna zananna an lan nujiza allaha fi l ardi wala nujizahu haraban ginnaaw ba ñu yéegee ci kaw asamaan si ba xam lépp ñu ne ñun day xam nañ ne tey jii ne day mënatuñoo mënatuñoo jaaxal yàlla mënatuñoo raw yàlla mënatuñoo rëcc yàlla fenn wala fil ardi ci biir suuf ak ci kaw asamaan yëpp yàlla la mu nekk ci kaw asamaan ñun xam nañ ne yàlla mi ngi ñuy xool mi ngi ñuy surveiller te mënatuñ koo jaaxal wala ñu rëcc ko waaye wala nujizahu haraban bu ñu jéemoon a daw sax bu ñu jéemoon a daw làqatu sax mënuñoo rëcc yàlla subhanahu wa taala kon ñun jaratul ñuy daw wala ñuy làqatu wala ñuy def dara nañu jaamu yàlla gëm muhammad bii yàlla wàcce te dëggal ko sallallahu alayhi wa sallam ñoom jinne yu baax yi ñu ne wa anna lamma sami'na alhuda amanna bi fa man yu'min bi rabbihi fala yaxaafu baxsan wala rahaban mu ne ñun daal wa anna ñun lamma sami'na alhuda ba ñu déggee njub gii di alquran amanna bihi ñun day gëm nañu alquran lii ñu dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko tari wallahi dëgg la te lii daal moom xam nañ ni nit mënu koo wax yàlla rek moo ko mën a wàcc ñun day gëm nañ ko waaye fa may yu'min bi rabbihi képp koo xam ne gëm nga boroomam wala képp koo xam ne gëm na boroomam falaa yaxaafu kooku day du ragal amatul lu muy tiit amatul lu muy ragal amatul lu muy jaaxle bax saw wàññeeku wala raxaqan wala dégg doyo dootoo ragal ni sa boroom daf lay tooñ wala kenn dina la tooñ dootoo ragal wàññeeku dootoo ragal jéggi doyo ndax da ngay xam ne lii yàlla wàcc alxuraan bi mooy dëgg te ku si jàpp ba yowmal xiyaam yaa ngi jàpp ci siraatal mustaqim kon daal jinne yi nga xam ne demoon nañ déglu ji ñoom bañ ñëwee lii la ñu nettali seen moroomi jinne yi daal di fay doxee nag gëm yàlla subhanahu wa taala mbokk yi li mooy suratul jinni wala xaaj bi suratul jinni fii la ñuy yem ak yéen suñu tafsiru tay bi di leen di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp tey nag suñu tafsir bi ki nga xamante ni moom lañ ko tuddee mooy Seydina Aline Dieng borom Espagne ki nga xamante ni mooy soppeey Anta di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak waa këram ak njabootam yépp yàlla defal ñu jàmm defal ko mboolem kuy déglu di ñaan yàlla mu bàyyi ñu fi ba ñu eggale ko ak jàmm ak salaam aqulu ma tasmaun wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu